Et non seulement pour euh, vraiment rencontrer ASPI, doit leen vraiment euh, appréciation yi nga xam ne autorités administratives yi wane ne ñu ngi liggéey liggéey bu muccute ayib boo xam ne ñëpp reconnaître nañ ko mais loolu nag bu amee dafa am benn njukkal bu ñu leen war a delloo seen ne fukki junni ASP yoo xam ne le président Macky Sall moo jël initiative yi mettre leen bëbal leen si euh, ñuy aider corps de défense et sécurité di aider administration yi parce que moom noonu la ko gisee woon ne ASP doo doon doo xam ne du sécurité pure et lay def mais aider administration loolu yàlla def na am na ñu xalaat ñeenti at ASP yi lan lañ leen di delloo njukkal loolu la ñuy dox tey ñi ñi jàppale ñu si muy euh, ANPEJ muy ANACIM muy euh, PRODAC muy euh, aussi 3FPT ñoom ñëpp ñu lëkkaloo le 18 et 19 mais dernier pour vraiment pour répondre si question boobu loolu nag bi ñu ko tënkee ku nekk li nga xam ne yaa ngi siy liggéey vraiment di nga si jàppale ASP yi loolu la ñuy waxtaan si région yi fukki région yi ak ñeent léegi def nañ fukki raison ak ñett léegi ñu ngi cees dañuy rassembler gouverneur inspecteur académique chambre des métiers chambre des commerces de commerce ak centre de formation yëpp ku nekk ñu wax la projet partagé ko ñoom ba nga xam ne bu weer bi passé weeru koor bi ñu entamer les formation loolu lañ war dugal boo xam ne dañ koy delloo ASP yi. xam nga. waa xam nga dañoo ne euh, vraiment ASP métier yi ñuy jël dafa war a méngoog vraiment li nga xam ne mooy koom-koom yi gox yi kees gis nañ ne culture maraîchage yi am na fi njëriñ tourisme bi am na si njëriñ parce que tourisme yi ko loo xam ne la secteur boo xam ne la bu important suñu économie nationale et touristes yi vraiment bugg nañ Sénégal mais seen sécurité moom moo leen gënal maintenant bu fekkee ne dañuy def benn plateforme boo xam ne mettre en place loo xam ne former xale yi ay garde euh, comment dirais-je ay euh, guide touristique former leen aussi si les métiers du tourisme je pense que dinañ am benn tourisme boo xam ne day professionnel mi ngi mel ni aussi aéroport de Diass parce que xam nga aéroport dafa doon loo xam ne dafa doy waar ay risque la balaa ñu fay dugal kenn da nga war a am ay certification ay OACI organisation internationale de l'aviation civile donc yooyu balaa nga koy am ay diplômes yoo xam ne ay certificats yoo xam ne ay ñetti weer nga koy def ñeenti weer ñu ne ASP yi nga xam ne war nañ ko mën a def mu nañ leen si former ba nga xam ne bu aéroport bu tëjee ñu jël présenter seen candidature pour ñu mun a dugg foofu de la même manière si montage aussi automobile Thiès xam nañ ne aussi dañ siy yëngu ak ay mécanique yooyu yëpp dafa doon yoo xam ne vraiment dañ koy saytu xool ko ba nga xam ne buñ kuñ lay former loolu dañuy ñëw dugal la si ba nga xam ne boo génnee doo am ay problème affaire yi yi aussi ñu ngi koy wax dañoo ne am na benn innovation bu ñu si jël parce que bu njëkk dañ ko doon di jox vraiment kenn gañe ko def ko mais fukki junni nit fu nga joxal leen tenue dafa metti loolu moo waral mu am tardé bii maintenant nag loolu yàlla def na am na dinañ leen jox tenue yi d'ici mois d'août incha allah maintenant nag dañoo ne léegi pour problème bi bañ a amati. Euh, département yëpp localité yëpp dañ fay ut benn koo xam ne dafa mën a defar ay tenue ñu jox ko agrément nga xam ne prix bi dañ koy homologué nga xam ne ay ASP bu soxla tenue bu sa tenue yàqoo boo demee nga ut fa ay tenue loolu lañ def pour indi saafara vraiment si problème tenue bi nga xam ne vraiment pour ñu commandé ko pour 10 000 toujours day métti suñu problème piqûre yi nee nañ aussi que ñëpp wax nañ ne ASP ñu ngi def mu te ayib loolu na bu fekkee ne ñëpp reconnaître nañ ko. dañu leen war a xalaat nañ leen jëf pour yokkal leen seen pécule loolu nag budget état dafa doon loo xam ne lu bëri daf koy jël en charge am na éducation am na santé du ASP rek ñoom ñoo fi ne ñu ñoo war a xalaat en tant que agence parce que agence bokkut ak ministère nga xam ne dañu ñoo amee seen budget dañ war a vraiment xalaat loo xam ne dinañ fexe am suñu autonomie loolu nag bi ñu ko xalaatee dañoo ne ministère bu nekk na jël benn ligne budgétaire à partir de 2010 2017 ba nga xam ne dañuy jël ASP yi am benn loo xam ne dina takku loo xam ne dinañ mën a envisager yokkal leen et régler si ay yeneen problème ba nga xam ne état bi vraiment dinañu dinañu am suñu autonomie boo xam ne dinañ ko yombalal vraiment budget bi loolu nañ si am xalaat boo xam ne vraiment mun nañ indi vraiment yokkute si ay yi